asalaamaaleykum wa rahmatulah sëriñ Touba lay nuyu alhamdulilah na mën naa la lool kat dama la rajo dégg fan yii kat diggatuma la depuis boobu ñi ngi doon waxtaan keroog ci xari laadum wala xar yu am valeur yoo xam ne tëbu bi rek cent mille franc la wala nangam la ci prix te tëbu bi wóorul est xar bee dina ci am doom wala déet waaye loolu xaram na bayanul xarar la. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko araamal te an yoon yaqdi tahrim yonent bi sallallahu alayhi wa lépp lu mu aaye lool day xaraam lu mu aaye nag bi shaklin lazim mooy bàyyi leen bii nga xam ne si def ko aaye itlaaxan nga xam ne boo ko def boo ko defee day am bakkaar loolu dafa xaraam bay bayoxla xaraar mooy bépp loo mën a jaay loo xam ne si yaa ngi koy jaay ba pare tegoo ci loxo hmm? alba jaay te li nga jaay tegoo ci loxo te it wóorul est ce que li nga li koy jaay dina ko ci am wala déet mooy wóorul est ce que moom jënd bi lim jënd dina ci tëbu ci am doom walla déet même bu ngeen ci d' yi nga xam ne si bàyyi en traite la nga xam ne si si dagan na muy lépp ñaari nit ñi d' accord na waaye nag ba mu des loo xam ne nas dafa ñëw wala xadis li taxrimi yi li nag nas la yonent bi indi araamal ko. su jaay jën ci ndox deesu jaay picc mooy naaw ñaaw ci ngelaw yi nga ne ko nga ne ko jaay yàlla picc male ba noppi tegoo ci loxo deesu jaay nit ab tëbu boo xam ne boo xam ne woo ci ndax mu am ci doomam déet araamal aussi jaay lu ne ci ndiggu xar loo xam ne si euh, mi ci ndiggam ba noppi génnekul deesu jaay aussi soow bu ne ci ween dee su jaay aussi dëggu boo xam ne xamoo est-ce que dinañ ci am doom même bu ngeen ci d'accord yéen ñaar day xaraam parce que doom la ci jublu te doom boobu wóorul ndax dina am déet dee su kenn loo xam daal li nga ko jaay wóorul mu am ca loola kon loolu laa bëgg wax maa lay nuyu bu baax di la ziar salaamaaleykum wa